mais na xam nga comédien lu ñu invité. Ah, waaw waaw <laughs> l'international. Mm-hmm. dafa am question bu ma ko bëgg poser mais bala ma koy poser day def day def affaire bi ba pare. Ah, démonstration maanaam démonstration merci beaucoup tey la capitaine. il est intellectuel. waaw maître El Hadj Diouf laa bëgg ba pare. ma laaj na si ay. dama ne salaamaaleykum. ah waaleykum salaam maa ngi nuyu. leen Amaro maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu. mais Amaro yow dama dama la faa. parce que dama yor ay bakkan di nga jox su du mujj fenn man mii la laa jox xool sama làmmiñ la la jox. dëgg la xam nga nit ku ne amul la man làmmiñ la am. dëgg la yor naa ay làmmiñ yoo xam ni man ku ne ñu oral sama làmmiñ. dëgg la man fi ne nii bañ na ko mënoon nañu mel El Hadj Diouf daa yor ay làmmiñam ku ne jox na ko làmmiñam ku ne faral na ko waaye duñu ko wax man ay làmmiñ laa joxe mais da nga def innovation. da nga ñëw joxe ay bakkan loolu moo ma di neex mais waa am dina def. na ngeen def kii ça va na ngeen def ça va. Ah, xam nga lii mi ngi tuuru lii mi ngi toq lii dara fayu ko maa ngi leen nuyu. Moustapha waaw gis nga. waaw gis nga. la différence fait la différence. benn comédien lañ fii ni woon mu taxaw naan kooku naan yaa fii toj kooku taxaw fi naan ay. 59 53 na dem mbappati ji na dem mbappati ji tojul fenn tojul fenn fii la ah, yaa ngi dégg fii la toog keroog naan <laughs> waaw man fii laa nekkoon ah, waaw euh, Touba nangam xara xara xara juddoo juddoo ba 3h30 waaw juddoo 3h30 léegi léegi gigi xam nga gigi gis nga Idrissa defe naa Idrissa Idrissa Seck ah, waaw waaw mais bu laalee mhm. maa ngi leen di di leen sant di leen gërëm. Mhm. di am mbégte contentement bu baax a baax a baax ci seenub teewaay. Mhm. ndaxta li ngeen wax aaya la boo xam ne mooy aaya ba yàlla wax ci mbégteeg bégele. Ah. kon wax dëgg yàlla su ngeen dalalee Idi ah, ma fas yéene ñëw <laughs> fas yéene. nga wax damaa fas yéene. damaa fas yéene. lekk dëxin. dañoo fas yéene lekk dëxin bàyyi ndogalu yàlla. lu ci yàlla dogal ñu xam ne loolu la. waaw xam nga lii travail bi mais nan la koy maîtriser yow nan ngay wax. waaw xam nga mooy li ma la wax rek tey jii euh, comédien bi lépp dafay yomb ci. yàlla àtte na ma. waaw parce que imitation. fii lañ toogoon demee trop. waaw parce que parce nii. waaw parce fii lañ toog jëli dof dof boo xam ne kenn xam fu mu jógee wërëb wërëb rek. paaka naan ma waaw man dama xew Omaro naan ko da ngaa xew xam nga benn koowu paaka voilà comédien ngi nii paa pooba yi nag seen doom a ngi nii waxal booy boo waxee da ngaa war a wax boo waxul da ngaa war a wax te am di personnage yi neexee bu la neexee waaw waaw waaw ñëw ci Ablaye Wade boo noppee nga doog a dem page de pub dellu si nag nga ñëw ci Alaaji Njaay jeex na parce que di barki dem dama xuloo ak Alaaji amul benn problème amul benn ni ma ko bëgg laaj mooy Karim lu muy xaar pour ñëw parce que ñun dañ soxla Karim ci réew mi lu tee Karim ba ñëwul ba léegi yóbbu gërëm di wax ni Karim nañu ko teggi bët parce que Karim yorul bakkan bu muy séddale ah? Karim yorul loxo yu muy joxe Karim ndigalu baayam lay xaar uh-huh. li nga war wax mooy man Abdoulaye dama sonn ci masque bi masque bi nañ ci wax parce que non eh ah, ah, Moussa Ba nañ wax dëgg man damay sa xale yi naan ma kii ba xam Abdoulaye la ma ne man la mais dama dem ba ba xam nga na taxuma ko kii mais boo tegee masque day gën a metti ma ñuy ñaan masque yi Omaro bu dee mën nga joxe bakkan boo xam ni affaire corona bi day ànd ak bakkan boobu dem su ko defee gars yi mën na teggi de laa ñaan pip nañ dugg pip nañ dugg pip waaw waaw te